wax napp gi rek dañuy foog ni li nekk ci géej gi la waaye boo paree foofu it xam ngeen ne am na suñu ay yaay yu nga xam ne ñu ngi fii ñoom ñooy denc jën yi sax waaye xam ngeen ni ñooñu congélateur sax bu baax amuñu ko dañuy jël yu màgget yi di jël gaz di ko ci def place bu baax bu ñuy jaayee amul da ngay chaîne chaîne la ndax day dem ba ci waaskat bi dem ba ci kii defari keccax donc liggéey bi ci nekk njëriñ bi ci nekk xam nañ ko moo buñ koy wax waxuñ ko pour dimbali nit dañoo bëgg ku nekk ci yéen mun yor boppam ci wàllu koom ba yàlla def liggéey bu muy def du ko mun def moom kese ba mu oo benn doomu Sénégal ne ko kaay dimbale ma loolu mooy créer bi ñu koy wax it noonu la ngeen xam ni li jëm ci ressources yi nga xam ne ñoo ko moom mooy suñu géej ñun ñoo ko moom Sénégal kon balaa ngay jaayi bitim réew nga jox ko sa njaboot ba pare bu dee organisation amul ku leen gën a organiser loo fi defoon tey boo ne woon benn licence ñu joxee pour Soumbédioune ñoom mën nañ taxaw ne ko def ko turu diw te diw boobu wóor na leen ne du mu sa jël lu mu moomul ci loolu du noonu nga organiser ko mu nekk ay équipe yuy liggéey donc coopérative yi ñuy créer yëpp même pour loolu pour encadrer processus yooyu dafay yomb commerçant yi da ko ko seetluwul mais ci weeru koor gi xool leen ñaata maire ñaata jeune ñooy am benn table bu ndaw di ci jéem a jaay ndogu pour jéem ci yor seen bopp donc sénégalais bëgg nañ liggéey bëgg nañ tekki bëgg nañ yor seen bopp li manqué mooy nit yu leen di gunge ci loolu te loolu moo ñu tumuranke loolu nit ki nag lu mu la munti may li ngay amal sa bopp moo la ëppal njëriñ donc ma bëggoon nag ngeen xam ni mu ñun bi ñuy ñëw dafa am lu ñu teg lu leer nit ki li nga moom da koy jël ba mu mët sëkk suñu géej gi ñoo ko moom dañ koy jëlaat sunu suuf li ci yàlla def ci wërsëg ñoo ko moom il faut ñu jëlaat ko bu nu ko jëlee ba pare nga def ko nag ay moyen pour investir ci li sénégalais yi di gën a yëngu mooy mbay mi mooy sàmm gi mooy napp gi mooy artisanat mooy commerce loolu boo ko génnee ci Sénégal lan mooy des donc da ngeen déggoon fii programme de modernisation de marché non ban marché lañ fi tabax bu joxe ci réew mi booy dañuy taxaw ci mbedd yi di jaay mouchoir ku bëgg jaay paquetu mouchoir ba ngoon kooku nag boo ko joxoon pexe nag boo ko lebaloon un million moom xam na li mu ciy def donc il ñu teg ay matuwaay jeunes du Sénégal s'expriment économiquement boo demoon ci mool yi même chose da ngay toog fi ñuy maire yi fi ñuy jaayee jën ay glace ay conservateurs yu yàqu ñoo fa nekk lii mooy Sénégal lii nag lañ fi war a jëlee bii paa yàlla dafa def yàlla dafa def dañuy tànn pour tànn nag déglu leen ñëpp bu leen neexee bu boobaa man de man dama ne dimanche 24 mars bu soobee yàlla bu may voté ji ànd mhm. dinaa xam kan laay dénk sama bopp parce que nekkuma ci affaire cofeel dama ne mhm. ku may dénk sama réew dama dina ma wóor nii man ci sama wàllu bopp xam ne luy sama problème ak naka la koy faje yéen it noonu comportement boobu ngeen war a am